caricature bi ñu def maam Cheikh Ahmadou Bamba. la famille El Hadj Amadou Baro Ndiéguène. la famille Cheikh El Hadj Amadou Baro Ndiéguène. la famille El Hadj Mouhamad Ndiéguène. la famille El Hadj Mouhamad Ndiéguène. la Hadra Ndiéguène. la Hadra Ndiéguène. Kondaan. Kondaan. avec la dernière énergie. avec la dernière énergie. les insultes désobligeantes. les ins les insultes désobligeantes. sëriñ bi li ngay wax daa fort. <laughs> désobligeantes. <laughs> ah dafa bëgg ma laaj ko ci beneen laaj <laughs> bismillah. à l'endroit du maître des maîtres Serigne Touba radiyallahu à, à l'endroit des maîtres lañu mu ni ñun ñëpp sëriñ Touba lañu dama xool sëñ Fallou loo mu ni dafa xool Serigne Fallou Lo imam Fallou Lo imam Fallou Lo mu sol coruk sëriñ Touba mu ni mu sol solu Serigne Touba mu ne ma ne président de la république de. mu ne mu ni président de la république de. daa waroon a xëy rek. daa waroon xëy rek. sol yére Serigne Touba. sol yére Serigne Touba. réew mi yëpp nañ sol yére. nañ réew mi yëpp nañ sol yére Serigne Touba. ñu xam ne li ñu wax Serigne Touba. ñu xam ne li ñu wax Serigne Touba. ñun ñëpp la metti ñun ñëpp la duñ leen bàyyi nag. mu ne waaye nag duñ leen bàyyi. ak ñàkk fayda lay doon. ak ñàkk fayda rek lay doon. waaye dañu koy combattre avec intelligence. mu ne waaye nag dañ koy combattre ak intelligence. avec compétence. avec compétence. avec responsabilité. avec responsabilité. état bi am na ci rôle. mu ne état am na ci rôle. société bi am na ci rôle bi am na ci rôle. waaye nag média yi. waaye média yi. am ngeen rôle. am nañu rôle bu mag ci loolu. ku leen bañ a tooñ. képp ku leen bañ a tooñ. ah ku leen bëgg a tooñ. ku leen bëgg a tooñ. dinaa wax ni dina wax ni affaire yu mel nii. affaire yu mel nii bokk ngeen ci bokk ngeen ci. corriger leen seen ligne éditoriale. mu ni corriger leen seen ligne éditoriale. loolu communicant communicateurs yi laa ko mu ni loolu communicateur yi la ko wax. du ma ci sori. du ci sori. ndax euh, corporatisme léeg-léeg. mu ni nax corporatisme léeg-léeg. boo waxee ñu ne sëriñ ba nangam nangam. doo waxee ñu ne sëriñ ba dafa nangam nangam. am na loo xam ne. mu ne waaye am na loo xam ni. du ngeen ko soppiwul. du ngeen ko soppiwul. bu réew mi tàkkee. du réew mi tàkkee. responsabilité bu rëy ngeen. responsabilité bu rëy ngeen ciy am. yal na yàlla sëriñ bi nee na yal na yàlla dolli sutura yi.